ci démocratie lan moo tax ñu indi France dégage bi lépp loo xamante ne méttit la ci Sénégal sooy xool point de convergence bi. drapeau France lañ ah. lépp loo xamante ne problème la ci Sénégal point de convergence bi fii la parce que te jii nii ñun bañuñu France ñu Macron Macron tey dañ ko fal. dëkkam li mu fa war a def mu ngi koy def parce que ay intérêt su fekkee ni toroxal Sénégal la pour France am intérêt loolu dañ koy kii comprendre nga kon tey jii ñoom mënuñ leen a wax dara waaye suñu nguur ñi nga xam ne ñooy gouverneur France dañ leen a bëgg a wax ne am nañ suuf am nañ ndox am nañ pétrole am nañ gaz dëkk bi ñi fi juddoo ba màggee fi war nañ mën a am kër war nañ mën a tedd war nañ mën a dund ci jàmm war nañ mën a am liggéey kon loolu noonu tey dafa nekk loo xamante ne moom mooy le message foor à passer ñi fi nekk ñëpp frustration bi nga xamante ne ñi nekk ci pouvoir bi yor ay milliards te ko seen kër di xaalis su dëkk bi ba du circuler ñooñ noonu ñoo frustré ñii ñi nga xamante ne tey ku ma am ndey ku ma amul ndey su fekkee ne yow pauvre nga même soo defee deful sax soo demee tribunal dañu lay tëj su fekkee yow riche nga ànd ak pouvoir bi loo mun di def muy li gën a garaaw ci defin jël su population bi duñ la tëj sàcc ko teg ko sa kër di dund yow ak sa njaboot kese wala tëj ay compte extérieur tey jii moo waral lii yëpp ay frustration voilà à deux justement justement soxna de bala ñu